li mu juróom fukki million yu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké doon jàppale ñi loru ci mbënd mi ak wale bi fanweeri fan ci weeru août 2021 lañ ko jébbal gouverneur bu njaareem Serigne Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah teewal Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mi yor kàddu khalife général des mourides moo jébbal chèque bi gouverneur di góor gi mbay muy xaaj bu njëkk bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké dugal ci li ñuy wooye plan Orsec ñaan gi moom doole moom la kenn mënut a valoriser sax nit ñi mën génn ci diggante bi ak euh, jafe-jafe yi mm-hmm. a seenu dal mën a sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey réew mi am jàmm ak dal. gouverneur bu njaareem nag rafetlu lool jëf ji wax ne kenn du ne guléet la ci Cheikh mun taxaam mi nga xam ni waxtu wu nekk mi ngi ci wetu askan wi di leen taxaw ginnaaw loolu itam mu xam ne ñëw na lool fi ñu ko soxlaa te ittewoo ko te itam danañ ci jàppale askan yu loru yi nga xam ne dañoo mujj sax génn seeni kër ginnaaw bi mu xam xamle ne danañ ko séddale kem niñ ko diglee sant na sëriñ bi ci turu gouvernement bi nga xam ne ñoom la teewal ci diwaanu njaareem du ma def lu dul rafetlu geste bi sëriñ bi def du ma ne guléet nag lu ñor réew mi rekk ñor na sëñ Muntaxa Mbàkke loolu moom ñépp sedd na ko ñaanam du ko fekke dina ko ci ñaan lu mu war a ñaan ñaan ko lu mu war a wax wax ko lu mu war a wane nit ñi def ko wane ko waaye lu mu war joxe tëm joxe ko loolu ndax lu ñu daan dund ak yële passé fi mu nekk nii jóg dund fukkam gis ngeen xale yi ci loru léegi rek seen fi ngeen toog am na leneen lu ci bees lu ñëw fekk ngeen fekke ko nga xam ne loolu ay loraange yu xaw a tar la muy jeneen jëf ju dolliku ci jëf yu takku yi nga xam ne Cheikh mun Mountakha Mbacké mi ngi koy def saa su ne ci jàppale askan wi na mu ko waxee woon jëf topp na ci ni ko Cheikh Bassirou Mbacké mi yor doom leerale woon bi muy tënk programme màggal atum 2021